dal leen ak jàmm mbokk internet yi affaire Moustapha Cissé Lo journaliste bii di Pape Alé Niang wane na ab appel téléphonique bu doxoon ci diggante Marème Faye Sall ak ki nga xamante ne moom mooy Cissé Lo ba tax mu jàpp ne ab complot bu dox ci diggante Yakham Mbaye ak Farba Ngom moo am ci mbir mi moom Pape Alé Niang jàpp na ne ki nga xamante ne mooy Yakham Mbaye ak Farba Ngom dañoo teg ab plan ndëgg sërëx ngir jaxase ak dox ci diggante Macky Sall ak Moustapha Cissé Lo Pape Alé Niang bëggul woon faram fàcce li mu xam yépp ci mbir mi ndax xëy na xam lépp wax lépp baaxul waaye ci kaw gàttal moom journaliste bi jàpp na ni audio Moustapha Cissé Lo bi circulé ci réseaux sociaux yi ñu génne ko mu ci yëkkati ay kàddu yu ñaaw maanaam ay saaga ñi ko tasaare jubluwuñ ci lu dul fexe ba yàq ndaje bu waroon a ndox ci diggante Marème Faye Sall Macky Sall ak Moustapha Cissé Lo te waroon a am ca talaata ja bu ñu sukkandikoo ci journaliste bi di Pape Alé nekkoon ab invité ci émission Matin Bonheur soxna président Macky Sall di Marème Faye Sall dafa taxawal ab ndaje gu waroon a ndox ci diggante borom këram Macky Sall ak ki nga xamante ne mooy Moustapha Cissé Lo naam sax Marème Faye Sall ci jëmmi boppam moom moo woo ki nga xamante ne mooy Moustapha Cissé Lo ngir jàpp bés ak waxtu bi daje bi naroon a am ca talaata ja joojulee talaata Moustapha Cissé Lo fa la waroon na dem añee ji ngir mën a jàkkaarloo waale ak Macky la séq ak moom ab waxtaan daanaka journaliste bi di Pape Alé dafa jéggi bépp saaga boo xamante ne Moustapha Cissé Lo jot na ko amal ci yooyu lay audio di circuler ci réseaux sociaux yi ndax moom li ko soxal mooy xamle làqu ci mbir mi dëgg-dëgg ba tax mu duut baaraam ci tasaare gu ñu tasaare yooyu lay audio ak waxtu bi ñu ko tasaare lan moo waral ñu tasaare ko ak lu tax ñu xaar ba waxtu wi daal di koy tasaare ñaari laaj yi nga xamante ne moom la journaliste bii di Pape Alé samp lu mat bàyyi xel la ndax mel na nit ñi ko def am na luñ ci jublu waaye ba tey Pape Alé Niang di fàttali ne lu jëm ci wasaare ay waxtaanu biir ne ci lu dul teeyu bakkanu ñaar ñi ko seq yoonu Sénégal indi na ci ay tëralin ba teg ci ay daan ngir képp ku jalgati boobu la yoon lu deful waxul lu ay di jàmbat li ci kanam raw li bët Tactic TV dina leen toppal mbir mi ba mu sës lu ci ruusati ci xibaar dañ ci dellusiwaat ak yéen ngir yeneen di leeral jërë ngeen jëf